oto baa ngi nii embarquement waaw di waaye dem Sénégal waaw oto bii la Kara Mbodj may trondoom Cheikh Mouhamad ak Kara Mbacké Noreyni waaw oto baa ngi nii Ketchup bi di jëm bii la Kara Mbodj may trondoom Cheikh Mouhamad waa dama hop hop hop hop bi rafet na oto bii la ko may nag rans velaax oto baa ngi nii VIP VIP laa la VIP oto bii la Kara Mbodj may turandoom Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni maas a ngi nii maas mooy transitaire baa ngi nii maas moo liggéey papier yi waaye c'est oto baa ngi nii de oto bi la Karam Mbodj mooy turandoom Cheikh Mouhamadou Karam Mbacke Norey nii waaw oto baa ngi nii oto baa ngi dem Sénégal nii waaw. Boobu nañuy nogoo ah oto ngi nii gaan ah oto bi may turandoom Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké nooroy nii Ketchup ngi nii de Mass Mass directeur Mass mooy dugal oto de Ketchup oto baa ngi nii waaw oto bi la may trondoom oto baa ngi ni dem Sénégal waaw